أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني عيسى بك وذرية من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يعصوني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بأخوة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم بهذه الأمداء وبشر بها وجميع أحبائي صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين عتاب بالمملكة الأوتاني باغنا سليم Mor Ndiaye laa tudd dëkk Touba Darou Khoudoss di taalibe Serigne Moustapha Mbacke Mouhamed. moom ni nga ko waxee rek noonu rek la demee képp koo xam ne la 11 mars ñëw na sa xel dina dem si Taïf. ndax bis la boo xam ne Serigne Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma moom lañ ko féetaleel di ko si ñaanal ak doomam ji sëriñ Mbacke Soxna Lo Mouhamed ak Cheikh Abdoul Fatah di leen ci ñaanal si bisu 11 bi. donc yi nga xam ne ñoo jaaroon si daaray tarbiye yi nga xam ne li aju si sëñ Cheikh ba si sëñ Mbacke ba si sëñ Moustapha Mouhamed mii fi nekkal Serigne Mbacke Soxna tey donc yëpp dañoo maase. àndandoo fu waaye nekk su bis bi ñëwee da ngay ëpp sa place ñëw teewee bis bi ngir ndigal leen si amoon ci sëriñ Mbacke yendoo fee jàng alxuraan ak xasida ba sëriñ bi yeewee kenn ku ne delluwaat sa yitte ya bis bi moom noonu lañ ci fas yéenee di doxe noonu lañ ci fas yéenee di taxawee. sëriñ président Abdoulaye Sylla moom yàgg nañ koo dégg te xamuñu ko yàgg nañ koo dégg te jaxasoo woon ak ak njabootam. loxoom si yoonu Serigne Touba nag kenn umpale wu ko yàgg na see jëf yàgg na see def ba tey jii nga xamante ne bii le 11 ñëw na mu yëg ko waajuróom wa yëg ko soxna Aydi Silla ba mu ko yëgee lam daal def jël ab téléphone am daat koy woo ba mu ko woowee mu doon lum sawar doon lum yéene ba tax na mu def fi teraanga ju rëy indi fi loo xam ne ginnaaw yàlla ak sëriñ bi bu jàllee. lii mu fi indi mënta ñàkk si bés bi muy ndox ndax ndox moom mooy jagal lépp oto yi suñ ginnaaw di cinq oto yoo xam ne ndox la def jóge ba Dakaaru ñëw ba Taïf Mbacke ñu taxaw fii si buntu barabu sëñ Mbacke bi jàkkaarlook moom nii kon sëñ Ablaye Sylla jëf na fi jëf joo xam ne ñun ñëpp lañ maase di ko ñaanal si barkeb sëñ bi lim mu yéene si réew mi suñ borom defal ko ko ñu ngi làng jëwriñ joo xam ne képp koo xam ne dongob tarbiya nga jaar si daara ji ba yeeyu ko daa doon jëwriñ si ñooñu ñu koy wax sëriñ Serigne Xaadim kon mu féete Ndakaaru moom yaakaar naa xam na dëgg-dëgg sëñ si la yàgg na koo dëgg moom laa làngal nii taxaw moom nii. ñu ngi leen di siyaare bu baax di siyaare eh, wax dëgg yàlla eh, mboolem ñi nga xamante ne bi ñoo ñëw ci bis bu tedd bi comme noonu ko sëñ Mor Ndiaye waxee muy màggalu 11 mars. màggal 11 mars euh, ñoo ngi koy defar Cheikh sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma depuis 1978 bi mu fi jógee boobaak léegi dëkkut ah boo gisee nag euh, mu demee nii tey jii sax xëy na dañoo amoon ndigal ci kilifa xëy na ñu ne dañ koy def ci bëccëg gi waaye 11 mars gi dañ ko daan faraane bu bët set murit nag ndigal la euh, ndigal nag dañoo xam ne caabi la maanaam bu ëppee baaxul bu yéesee baaxul looloo tax maanaam dañ koy fas yéene def rek ci bëccëg gi comme ni ñu ko digalee. mooy muy magal ma dégg jëf ju am solo joo ñi nga xamante ne bii dégg naa ko muy sëñ Ablaye Sylla moomu ci noonu ko sëñ moor Ndiaye waxee maanaam loo mën si àdduna lu ne rek xëy na doomu aadama mën na ko yor waaye doomu aadama ñàkk ñàkk mat moo tax maanaam euh, ndox mii nag da caa bokk maanaam ci ni ko doomu aadama yittewoo moo tax suñu borom moo ko yoral boppam ndax maanaam euh, dafa mën ta ñàkk ci doomu aadama kon bu ñëwee di màggalu os marché sëñ Abdoulaye Sylla dégg ko comme ni ko sëñ Mor waxee ak yu baax yi muy def wax dëgg yàlla mu ënd ci ci te ak yeneen i jëf yu am solo te dégg naa ñu ne noonu la koy defee fu mu mën a doon waaye rawatina fii loolu moom ñu ngi ciy sant bu baax ànd ceeg mbégte bu baax a baax ndax sëñ moor mi laa dajeel maanaam mu wax ma ko mën a jëf ji moom kenn ku ne war nga cee mën a jël témoin de ko ci ñaanal nag yàlla ak yonent ak sëñ Touba ak barke boroom bés bi muy sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma ah, ak euh, sëñ Mbacké ma ak Cheikh Abdou Fatah mais tax ñu de ko def jëf ci baax yal na ko yàlla yal leen yàlla fay yal na ko yàlla fay aar ko sàmm ko sàmm njaboot gi ci darajey bés bi muy nag loo xamante ne bëgg nañ ci lool di leen ñaanal yéen ñi nga xamante ne bit maanaam dee nga yéen a taxawee kii bi ndax ñi ñi jëf ju jëf moom bu yaatoo ñëpp ca lañ bokk muy yéen ñi ko ëndeek ka ko joxeek ak ñu ko saytum ak si fii ak mboolem ñun ñi di ko témoin yàlla na sëñ Touba boole ñu def gudd fan gu ànd wér bokki milliardaires yi sëriñ Touba yi ñoo ngi koy ñaanal nag moom ak bëggam moo ko xam yàlla nag ko yàlla defal barke Cheikhuna Cheikh Bamba Khadimu Rasul eh, soxna Ayda ak soxna Amitine ah ak Serigne Saliou seen doom jooju ñoom liñ seq dafa rëy dem nañ ba daanaka ay mag ak rak ak doom rek la ndax soxna Ayda yéene ji si doom noonu la soxna amitin amee yéene doomi soxna Ayda soxna amitin it lépp loo xam ne luy jëmee kanam soxna Ayda la mook président si la ab téléphone du ko fekke aw dàllam du ko fekke man xam naa si dara ndax otoom bi nga xam ne moom la yor ñu féetale ko fu mu jëm maa ko fa yóbbu kon ñu ngi leen di ñaanal bu baax ñoom it di ko sant bu baax ndax tax taxawaay bu am solo la si taxawee ba fi mu ne nii rek yaakaar naa am na yeneen programme yoo xamante ne bi ñu ngi ko nësal te sëñ président si la moom dafa xaarut sëriñ bi kenn moom da see xaarut kenn ay jëfam moom ku ko gisatu dégg nga ko kon daal li leen di ñaanal mooy seen ànd boobu yàlla na ko suñu borom gën a dëgëral lim yéene si réew mi it suñ borom xam na ko li ne si xolam moo ko xam yàlla na ko yàlla defal àgg nañ ci sëriñ bi gis sëñ Fallu wax ko oto yi wax ko limub oto yi àgg na ci sëriñam sëriñ Moustapha Mbacke Mouhamed mi nga xam ne moo fi nekkal sëñ Mbacke sëñ fal lu leeral na ko oto yi xamal na na ko président Ablaye Sylla moo fi yónnee wax na ko limu oto yi sëriñ bi sant na ci lool gërëm na ñaan na ci sa teewaay yow mi nga xam ne yaa accompagné oto yi ban agsi tey ci taay yaakaar naa ne bi ko sëñ Fallou di leeral sëñ bi yaa ngi toog kon loolu ak sant la ak yaakaaru la kon président Ablaye Sylla na xam ne jëfam agsi na sëriñ Mbacke président Ablaye it yaakaar naa ne moom di ko wax sëñ Mbàkke ndax jot nañoo jëflante ñoom ñaar kon yaakaar naa bu jëfam ñëwee tey si bisu sëñ Mbàkke loolu asaar kon daal moom na xam ne na xelam dal yaakaaram dolligu te xam ne li muy jëf yalla nangu na ko sëriñ bi nangu na ko taalibe yi seen xol sedd na si ñu ngi leen di ñaanal bu baax tawfeex sëriñ Touba yàlla na ko yàlla defal ak mbooleem ku ko ànd moom ak ko am yéene ànd moom. waaw ma am mbégte bu baax nag ak kontaan bi may ñëwee sax fekk Mor Ndiaye def ba pare sax amatuma ci kàddu. waaye Ablaye moom daraab doyut ma ànd ak ndey Kodou Lay liggéey bi nag li ci ëppoon ñu jox ko Mor Ndiaye mu yor ko waaye Ablaye moom kër Sëñ Touba ko dem fekk ko fa bañ nañ ko ba waa Touba dañ ne kenn xamul kuy sëriñam ndax taalibe Sëñ Touba bi mu doon te setal ko wecc Ablaye bi mu paree barabu Sëñ Fallou rek doyoon na waaye teewut ku tuk ci Touba yaayam yeble na fa ndaw ngir bëgg gu mu bëgg Sëriñ Touba ndax nee na ma Ablaye lu mu def ci Sëñ Touba doyut ci la ñuy xëy ci la ñuy gont diggante Cheikh Ibra Fall ak Sëñ Touba ci la ñuy xëy di ci gont ak mbooleem nag seex bu fi am bis ablaay yónnee na ca ndaw ñu dem teewal ko fa mu def ca la ca war ca du nangu sax ku ko xam muy kuy jëf lu rafet te wax tuuti di taalibe Sëñ Touba boo xam ne lépp nag damaa jàpp ne fàgguteef ak Sëñ ndax ablaay moom ci mbiram Sëñ Touba rek la bokk fàgguteef Sëñ Touba yi mu feeñal Ablaye da cee bokk ñu ngi koy ñaanal yàlla di ñaanal ay di si Thialis Faye dikk fi yàqali ko ba mu yaatu fenn fu ne dugal fa tànkam ci Touba gii ndax bëgg liggéey liggéeyab Ablaye sëñ Touba gën cee am wàll kon loolu ñu ngi ko ci sant di ko gërëm di nuyu baayam di nuyu baay sal si la rakam bu baax a baax a baax moom itam ndax béy na ci waaram bu baax waaye na nga xam ne daal fu liggéey bi yegg yaayam a ko fa àggale ndax yaayam daal fukkeet ak juróom ku ma xam Touba xam nga ma ma nekk fi ndawam ku fi màggal mbaa nga takk fi baas ci tubaa ay bokk na ci lii da ko cee fekk mais amu ci leen lu mu sos lu bees jërëjën jëf ci bis bu tedd bii nga xam ne bisub euh, xéewal la bisub sàkk lu baax la ñu ànd suñu sunu présidente muy soxna Mitine ak sëñ Mor Ndiaye ndax euh, Aïda de baax na waaye ki mu fi teg nga xamante ne bii mooy jot jotal li ñaan lantinoor tey ak diw na xam ne li nga xamante ne bi moom la ko sant mi ngi ci bu baax a baax di sant président Ablaye Sylla nag ndax moom li olof Njaay di wax rek kenn ñaan ko moom mu ñaan boppam ndax moo fekk li sëñ Touba bëgg ci dox mu ànd ko taalibe sëñ Touba yi doon taalibe sëñ Touba ba pare dëggu ci te desut ci ginnaaw kon loolu mun du def lu sa ñaana ko ci bisu màgg bii nga xam ne bisu xéewal la suñ borom fa mu bëgg a egg moo xam yàlla ko suñ borom àggale sant nañ ko bu baax a baax a baax ndax amul du Daaru Xudoos amul du Taïf te gis nañ ne saa bu jóg rek def na fi li mu war def kon nag ñi ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm mu teewuñu ko ci suñu yaay ju baax ji muy soxna Aida la moom it tànkam lu dara nee nañ doom ja ndey ku kuñ ko wax nga mer rek seetiwaata sa yaay waaye Ablaye moom buñ ko nee doom ja ndey ja xolam dina sedd jërëjëf aouzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah wa ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe yëpp di leen sant bu baax ak di leen gërëm ci turu sëriñ bi turu njaboot gi turu taalibe yi di am mbégte lool am ni nga ko waxee ci bis bi nga xam ne moom la njagleel sëriñ Cheikh Amadou Mbacké ne Fatma ak sëriñ Mbacké soxna lool sëriñ Mohamed Mbacké ak njabootu sëriñ Cheikh yëpp ak jullit yëpp sax la ak taalibe yi nga xam yëpp ndax bis bu la ci ñun bis jàmbaar yi mel nañ ku mel ne sëriñ Cheikh ak ñu leen fàttaliku la war na jullit yëpp tamit. yi baaxoo di ko def fii ci Taïf ci dëkk Serigne Modou Moustapha Mbacké bi nga xam ne jëmm yooyu dañ ko marqué bu baax ne Serigne Cheikh ak Serigne Mohamed Mbacké kon bis bi comme ni nga ko waxee rek bisu ñaan la euh, bisu fàttaliku la jëmm yu tedd yooyu ci lu baax li nga xam ne ci lañ nekkoon day jullit àqan day murid saadiq àqan yoo xam ne nii seen dund gépp nañ koo jaglale yàlla ci liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam liggéey Serigne Touba ba laq ba laq ngërëm yooyu yëpp kon nag euh, dafay war kon saa su nekk waxtu wi ñuy bàkkilu ci ñoom seen jikko yu rafet ya seen taxawaay ya loolu nag wax dëgg yàlla bañ nga commencé def ba léegi euh, ay ndam rek lañ ci ci gis ndax jullit yëpp dañ ñëw fii Taïf ànd ko mbokki taalibe yëpp ànd ko xarit yëpp ak soppe yëpp. ñëw fii ci Taïf Taïf di barab bu jàdd boo xam ne nii ki ko sanc ñëpp xam nañ ko muy sëñ Mën Moustapha mi nga xam ne njëkk nekk xalifa sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul donc euh, pàkk bi pàkk barkeel pàkk ñaan kon bisu bisu ñaan la bisu fàttaliku la suñu jàmbaar yi nga xam ne ñoom rek lañ am amuñu leen ñoom kon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax bi xam ne boole nañ ci njaboot googu di ci sant yàlla bu baax bi nga xam ne tamit su nekk ñu ngi fàttaliku jëme yooyu ci. seen jikko yu rafet yooyu seen taxawaay bi mu doon taxawu ci wàllu islam ak ci wàllu liggéey Serigne Touba ndax ñoo ñëpp li leen ñoroon mooy liggéey Serigne Touba euh, bis bi nag wax gis nañ ci taxawaay taalibe yëpp euh, ndax taalibe tamit ñoom tamit lépp ñoom la kon bis bi bu ñëwee ñoom tamit ñeen ci sant di leen ci ñaanal bu baax seen yéene ak seen sabram defal leen ko ñu ngi ñaanal tamit mbokk yi fii daje yëpp ak xarit yi yëpp kenn ku nekk lañ fi jëf. sañ sañ gis ko jëf yooyu nag ràññee nañ ci suñu xarit Abdoulaye Sylla wax dëgg yàlla jaar jaar ko ci waajuram soxna Ayda ñu di ko sant bu baax a baax ci jëf yi rek yi nga xam ne man def nañ ko ci bis bi indi fii juróomi camion si tax na ndox ndax jamono yi euh, dëkk bi dafa xaw a euh, manqué ndox kon nag lu mel noonu ku la ko defal wax dëgg yàlla war na ay cant ak ngërëm ak ay ñaan kon ñëpp ñi xam daal def nañ ci. Eh, taxaw nañ ci bis bi muy taalibe yi muy am bi jàmm yi muy couleur yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal nangu leen liggéey bi barke Serigne Touba ñu beral cant comme ni ma ko waxee sànq rek Abdoulaye Sylla ak wajuram wax dëgg yàlla soxna Aida ci taxawaay am solo yi xam nañ ko ci bis bi na sa borom barkeel leen te dimbali leen bu baax te taxaw leen bu baax seen yéene ak seen mébét ci liggéey Serigne Touba bi ñu defal leen ko ndax xam nañu ñëpp ay taalibe Serigne Touba lañu yu bëgg liggéey Touba yu bëgg yu baax na liggéey Sénégal kon yàlla na yàlla barkeel leen kon ñu ngi sant yàlla bu baax di wax asalaamualeykum wa rahmatulah wa